الأبرار نسير وزن الرداني هناك أسير عسير مع الأبرار نسير وزن الرداني هناك أسير borom may yu yaatu yooyu nga xam ne ay kaawtéefam nekk na di waxtaan ndax la ko waroon ci pexe pexe ay noon yàlla musal ko ca yépp ba mu sadd bayt wax ko ne salimtu min al mucc naa ci pexey noon sang boobu ahmad ibnu muhammad ibnu habibillah xaadimu rasul waxoon nañu démb niaama sharaa ci la gane àddina muy 1270 ci hijra wax nañ ne ma nga wàcc liggéey amu shumusin 1346 soo ko nattee ci weer jullit yi muy juróom ñaar fukki at ak juróom benn suñ jëlee nag léegi gannaaw màndarga yooyu ñu jël doon ci barkeeloo jël sëriñ bi xaadimu rasul ak ay jaar jaaram danañ gis ne xaadimu rasulillahi ahmadu bamba comme niñ ko waxee tudd waajuram yu sell ya muy muhammad ibnu habibullah ibnu muhammad al tudd itam soxna jaaratullahi maryam te ñu gisoon nañ ko yare waajur ba sëñ Mor Baye Mor Anta Sali nekkoon na aalim nekkoon na imaam nekkoon na ku ñu xam ci xelam bu sell bu mat ni ko Cheikh Al Bachir indee ca téereem ba soxna sa maam jaara nekkoon na aabida jaamukatu yàlla di ko feeñal ci koor yu bari di ko feeñal itam ci taxawal ay guddi di ko feeñal ci bërib sarax waaye itam di ko feeñal ci yar njabootam ci di leen nettali ay qissa yoo xam ne ay nettali yu baax yuy des yooyu yëpp pour wax ni ci loxo yu sell ci la ko yàlla jaarale mu nekk moom sëñ bi di ko xam ne ku itteewoon teel a ittewoo xam-xam la yàlla may ko jàng na ci loxo maamam jàngaat itam ci loxo najaayam nekkoon na ci jolof di topp alluwaam waaye itam àndoon naag waajuram ya dem ca Saalum ca Poroxaan fekk ñoom ñu nga doon uj ji woote mabajaxu Ba bi yëkkati woon jihaad ngir taxawal lislaam ca réewam ripp ba mu fa nekkee nekkoon na moom sëñ bi di topp àlluwaam ci loxo najaayam ci loxo àmmam bay taxam Sàmba Tukulóor nekkoon na di jàng ba nga xam ne gannaaw xare ba ba Maam Mor Anta Sali waree ñib si euh, dellu si Bawal moom dafa des di wéyal alluwaam nekkoon na fa di wéyal ab njàngam moom sëriñ bi Mamor Anta Sali ñëw euh, Bawal nekkoon fa delsiwaatoon tam ak Lat ndax Lat xam nañ ne fekki woon na ma ba waaye fa mu tolloon ca xare ba gannaaw gi ñibbisi woon na itam pour taxawee Bawal moom xaadimu rasulillahi ahmadu ba bi mu nekkee ci loolu ba nga xam ne nag waajuram ba muy maam Mor Anta Sali génn na àddina ci atam junne ak ñetti téeméer ci milaat nee na ci altine ba sëñ bee koy nettali sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana di ko wax ca téeréem ba nga xam ne mooy Irwa un Nadim ma ngi koy wax ci xëtëb fukk ak juróom benn mu ne sëriñ bi nettali na ne ba mu mottalee kaamil ca kanam waajuram ba ci guddik altine ëllëg ba di guddik talaata ci la waajur bi di war a wàcc liggéey bi mu wàccee liggéey moom maam Moor Anta Sali ñu war ko yóbbu ca Déqale sëriñ bi bokkoon na ca ñay dem ngir taxawee ko waaye ba muy dem dafa tàmm dox ak ay tànkam ñu bari ñëw nañ gaaral ko seeni waruwaay seeni fas waaye mu ne leen tàmm naa dox ngir sàkku ci yool yooyu yëpp daf ñuy woon jëmmu nitu yàlla ki nga xam ni lu ci nekk rek tànn na ca yoon wa gën a jafe utul li ñuy wax solution de facilité waaye lu ci nekk rekk xam na ne nu mu gën a mettee yool bi gën a mag te loolu itam ñun ñoo tax muy jàngale ndax nit yàlla yi xéewal lañ bu yàlla di indi ngir seeni jëf war a nekk ab bind mu tànn kon dox ak ay tànkam malgré yiñ ko daan gaaral yépp ci ay waruwaay ba ñu yegsee ba war a taxawee Mamor Anta Sali sëriñ tey ba dim sëriñ Mamad Ndumbe Mar taxaw taxawee loola bañ paree ba yegsi ca waxtaan wa ak waare wa sëriñ tey ba nag daldi laajte ana sëriñ bi ne ana Ahmadou Bamba ana sëriñ Bamba mu jóg moom sëriñ bi te fekk ma nga toogoon ca gannaaw loolu yëpp itam pour nga gis jëmm ji gis lim ñu jàngal ci tawaadoo ci wara a wàcc sa bopp ndax wàcce sa bopp ci la la yàlla di yëkkatee te ñëw na ci xadiis man tawaadaa rafaahu llah ku wàcc sa bopp yàlla yëkkati la kon ca jataay boobu fekk na sëñ baa nga ca mbooloo ma waaye dafa ut palaas ca gannaaw toog fa biñ ko wooyee ne ko jegesil mu jóg taxaw taxawaay boo xam ne dana dégg te bu waxee ñu dégg ko mu ne fii baax na ndax buggut a jéggi nit ñi di ñëw si ci kanam ba tey bind ngi foofu ci ñi nga xam ne fu mbooloo bëree ñu wone ne ñoom seen ab dayoo mooy war a jéggi mbooloo ma yépp ñëw ci kanam seen ab dayoo mooy war a xëccoo yenn palaas ya ma ngi cay jàngale ne bañ la jéggi nit ñi te foo toll rekk nga xam ne foofa baax na bi sëriñ tey ba jógee bi muy wax ak moom won ko ne ko e gannaaw bi mu ko joxee kàddug njaal ne ko nag su ma sañoon nga ànd ak man ak ñenn ci ñu ràññeeku ci dëkk bi pour ñu ànd dem ca buur ba Lat Joor ngir jottali ko njaal suñ ko jottalee njaal e dana ko neex ndax wëllëre la woon ci waajur bi te itam dana tax mu jegeel la te dana tax itam mu taxaw la ci say bugg-bugg yépp sëriñ bi daldi ko tontu ne ko baatu njaal bi nga jot joxe jot na gërëm ko ci ne ko immaa nag li nga wax pour dem ca buur pour jege ji ko walla pour lenn lu mun di doon loola moom doyloo naa yàlla wëlis loola Euh, sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana mi ngi nettali ba tey ci téereem boobu nga xam ne euh, ci lay nettali dund bu sell boobu mu ngi ciy nettali ne ci xëtëb fukk ak juróom ñett mu ne foofa wax na fa loo xam ne ñaari xaaj la mu ne benn bu njëkk bi bi mu waxee waxam jooju ba ne doyloo naa yàlla wëlis buur ak luy jeex ci àddina doyloo na yàlla yàlla doy na ma mu ne mbooloo ma xaaj ñaari xaaj ñenn ñi ne ah kii de di ndaw nga xam ne boobu war naa toll ci fanweeri at am ngëm gii taxawee taxawaay yii sas nañu ni ñëpp ñenn ñi daldi ne ah kii de xamul li mu ku ñuy ubbil bunt yu nu yem ngay taxaw di am baat boo cay teg mu ne mbooloo ma xaaj ñaari xaaj mu ne sëñ bi sadd ca ne xaalu safihun li sarfi an basar li sarfi anhum basar yi mu ne ñi ne kii de xamul lim bugg ndax li ma xoolul lañu xool sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana ma ngay wéyali di wax ne ca nettali ba muy nettali dundub sëriñ bi mu ne nag beneen xaaju bayit bi mokkalu ko mu ne lam astaxdirha wala raaytu nusxataha foofu itam la honnêteté intellectuelle mun a yem mu ne beneen xaaju bayit bi nag jotu koo gis waaye nag mu ne beneen xaaju waxu sëriñ bi jëm ca wax mooy booba mu indi ne xaalu te ñi indiwoon ko démb xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxzu jawaïsa tourni kulla ma xiini foofa lay sëñ bi ci abyaat yu bëri yum ca wax ba yëg ne aw kayfa yabcasu nii xubbal xutaamu ala jiwaari man dóorihim rawdu shayaatini waay waay buggu ndesite àddina beeg xooñ meeg lu doya di lii naka la ma jëm ci këri buur yoo xam ne seeni kër du lu mooy ay pale seytaane dara xiiruma ci di ca teg banaan in kunta xazanin aw kunta za watarin daawta zal ayni qabla raa'i wa chiini bu fekke ne li lay tax a jóg ba ngay uti këri buur yi mooy jaaxle wala bugg-bugg bu nekk ci yow wool borom ayin ak raa ak chiin mooy boroom aras te xam ne loolu yépp am na ko noona lay ñëwee ba ne yaaman yalumu fala tuksir wa daa uzli ni islastu min fuqdati dunia bi mahzuni in kaana aybi zuhdun fi xutaamihimu fa zaaka aybun nafisun laysa yuxzini mu ne bu fekke de won seen gannaaw seen alal jeeg seen nguur yéeg yi ñi wone ne mooy dara bu fekkee loolu mooy sikk ci man kon sukk boobu duwul bu may suufeel kon nii la sëriñ bi jàngalee war a won nguur ak politique ak poñetu àddina bi gannaaw ngir war a xool sa boroom ci jamono joo xam ne jana jamono ju jafe woon la noonu itam la sëriñ bi nekkoon di jàngalekat lu jiitu lépp ame daara nekk sëriñ daara noonu itam la daan xeeñtoo yoonu gaaya te mooy yoonu tëjarut génn ci sa jëmm uti sa boroom yoonu siyaaxa di wër ak di seetlu xul siiru fil ardi boobu noonu la daan awee yooni gaaya di ko xeeñut bim toppee nag ci yoon woowu moom xaadimu rasuul ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag feeñu ko wax ak moom musaafahatan ne ko nag léegi nanga bàyyi di xamle nit ñi ci bind te yóbbuleen ci seen boroom ci himma mu daldi ko won loola yëf ya diis ak moom waaye mu jël nag fasda bi ma tumar mu xam ne nag lañ koy sant lu dëgër la ca la taxawee nag ca kanam mbooloo ma ca daara ja génn sukkandiku ca loola ne leen ala man kaana saxibana liltaallumi falyanzur li nafsihi walyazhab xaysu shaa waliyan wa li jinsihi wa man araada maa aradna falyassir bi sayrina walyaqum bi amrina koo xam ne daal jàng moo ko taxoon a jóg na uti beneen yoon koo xam ne nag dafa ñëw ngir nekk taalibe laxasaayu nañu topp foofa mbooloo ma xaaj ñaari xaaj coow la jóg ñenn ñi ne dañuy dem ñenn ñi di téye ñenn ñi foofa nag la yoon woo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe tàmbalee foofu la liggéey boobu tàmbalee su toori yafitaarihim abi muhammadan bi azmin wa nasrin wa wa nimasatoolu ñu ngi àndoon nag cheikh al xadim xadimu rasulillah ànd nañ ak moom mu nekk cheikhu tadris di jàngalekat ànd nañ ak moom muy saaxibu himma di borom itte ànd nañ ak moom muy zaahid won àddina gannaaw ànd nañ ak moom mu tëj bunti buur yi uti bunti buur ba muy yàlla buur uti yàlla ànd nañ ak moom mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi mu jox ko ndigal ci ne jël jaam yi ommat leen yonent bi sallallahu alayhi wax na ko ko musaafahatan soo demee Cheikh Mouhamad lëmin Diop Dagana ma ngi koy wax ci irwaa'u Nadim ma ngi koy wax ca page 22 ba di wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo wax shaafahahu bi qawlihi rabbi asxaabika bilhimma wala turabbihim bi dars mu ne ko na nga yar say ñoñ ci himma te mooy itte googu di jóge ci itte googu di lay yóbbu ci sa borom mu lay xamal te bu leen yar ci ab bind ndax xam-xam marsuum moo ca gën a tuuti la ñuy bind la bindul nag te yàlla di ko xam mu nekk xéewalam mooy la ca gën a mag loola nag sëriñ bi nettali na ko ridwaanullaahi alayhi sëñ baa ngi wax ne wa min ajaa'ib ibni abdillaahi salla alayhi bi baaqin adaa ardahu bi lawliya ila alqiyaama wa kullu waliya sunnatuhu wa saanaha an bidaci tabshiruhu xadimuhu bi fasdaci muy wax ci kéemaanu ibnu abdullah muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu leeralee suuf di ko leeralee ak ay wàlliyu ñiy wéy di wéy di leeral jamono ju nekk ak barab bu nekk mu ne ba di taxawee mu ne nag bokk na ci xéewal yooyu bokk na ci kéemtaan yooyu jóge ci yonent bi salaay sallam mooy ba mu waxee xaadimam te mooy jawrinam muy moom di Ahmadu Bamba ne ko bigal nañ lañ ci fasda bi ma tu'mar jógal nga woote yonent bi sallallahu alayhi bañ ko waxee fas daa bi ma tumar ca la jógee woote xare moom itam bañ ko joxee ba ku ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ca jóg woote ci yoon bi nga xam ne mooy yooni murid moo tax mu ne bi an yaalama al muridiina wa man yaqbal minhum nusxa min ahli zaman wa annahu awsalahu an taxalli li rabbihi mubashiran bittahalli mu ne ngir murit yi xam ne ku ci nangu ci ñoom ay njëriñ ki tegtal ak ñu ommat la mu xam ne yoon wii kat ki ko yëkkati muy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dañ koo jaarale ci yoonu taxalleeg taxalli te loolu mooy yoonu gaaya mooy a taxalli qabla taxalli ak at taxalli qabla tajalli muy ñetti étape ya dangay dindi mbooleem loo xam ne gisoon nga ko sukkandikukaay ba dara dootul des muy la négation totale ak taxalli su ko defee nag taxalli ñëw nga takk gànjar ya taar ya yàlla takkal la ko boppam te mooy yoonu taxal lii taxal lii nag mooy ànd ak te jël lii yàlla di wax ci yow di def ci yow loo defa teeg loo waxati loola mu nga jóge ci yàlla kon noonu la jëlee yoon woowu muy yoon woo xam ne mooy tariqal muridiya te mooy yoonu gaaya mu mel ni léeg-léeg ñenn ñi laaj waaw ndax yoon woowu nit mën na koo jël ba pare boole kook baneen walla nit mën na koo jël bàyyi ko sëriñ bi ne déedéet kon yooni gaay yépp ñoo bokk benn mantiq mu mel ni aji déglu ji dana ma poser question waaw lu tax su ma nekkee tiijaan mënumaa nekk murit lu tax bu ma nekkee murit mënumaa nekk tiijaan lu tax mënuma leen a boole lu tax mënumaa utati siyaareb tëbb ci keneen lu mooy kë ma jàpp yoonam te lépp ñu ne ma lislaam la boroom xam-xam yi tontu ca ne ba ca jiitu de wàllu sharia la mooy contrat moo boole dangaa ñëw jaayante indiwoon woon nañ démb la ca Cheikh Al Bachir waxoon ca bayaa ka nga jaayanteel nag dangaa jaayanteeg moom te yàlla ne mottali leen kóllëre mottali leen contrat kon soo xasee ba am contrat contrat boobu daf lay daldi yemale foofu firiwul nag ne foofu rekk a am waaye contrat ba moo lay yemale foofa muy benn ñaareel bi itam seyrun bil xal bi la sa xol nga jël am foo ko duggal jël ay tur yoo xam ne yu ñu jël la joxe ca ndigal su ko defee nag ñi ne la loolu mooy ubbi sa xol bi yóbbu la danga jël sa xol di ko doxee jëm ci yàlla seyrun bil xal bi te xol du jàpp ñaar gannaaw nag xol du jàpp ñaar kon bi mu jàpp moom lay jël loola nag mu ngi koy jël ca awraadu laazima yi nga xam ne dañ lay ne moom danga koy saxoo yooyu dootoo ko booleeg yeneen yu ñuy saxoo faneen kon dama bëggoon a wax rekk ne loola mooy yooyu yoonu gaay yépp soo ca xasee ba jàpp dootoo bàyyi soo ca xasee ba jàpp dootoo ko boole ak leneen almuridu laayu yuriidu dangay yegg ci sëlbul iraada mën nga ko fire itam beneen firin mooy ne yoon la tariqa la tariqa nag yoon buñ la nee yoon bii de am na waaye beneen yoon am na te yépp palaas sàngam la jëm nga ne waaye mënoo aw yoon yépp pour yegg ci palaas sàngam kon nag fokk mu am yoon woo xam ne moom nga cee jël pour aw ko looloo tax ñoom ñu tudde ko yoon woo xam ne dafa am tàmbali am àkkukaay tuddee ko suluk ak looloo tax sëriñ baa ngi wax ci biir ne ku jàppanteeg sëriñ boo xam ne waasil la fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal soo àndee koo xam ne de tegu na ci kaw yoon danga nga yegg boo àndul ak ku tegu ci kaw yoon nag xamal ne yow réer nga wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yadi cheikhi fa yalqaa mehana mu ne nag ku amul sëriñ bu jël tarbiya la tarqiya la bu boobaa ay coono rekk ndax sam xelam bopp rekk ngay demee kon nga gis ne ñoom ñépp seen kàddu benn la ñoom ñépp seen awale benn la looloo tax sëñ bi itam jóg pour tarbiya nit ki teggil ko li nga xam ne moo dox digganteem ak boppam dox digganteem ak moroomam dox digganteem ak boromam ñu koy tuddee alxijaab te mooy voile boobu di dox sa diggante ak xam yàlla mu ne xijaab yi nag juróom benn lañ bi xaadimu rasul mu ne xijaab yi dox nag sa digganteeg sa borom juróom benn lañ walil xijaabi sittatun min al usul wa qatuhaa xaqan liman raamal wusul mu ne juróom benn kiiraay de ñoo am soo bëggee yegg ci sa boroom nag fokk nga dagg ko mu ne qul kisratul akli wa kisratu shurbi summa mulaaqaatul baraaya bistihab mu ne néewal sa lekk néewal sa naan di xeex ak bakkan bi te uti yàlla te fekk am nga àndandoor bu mat àndandoor mu ne wa kisratul kalaami néewal wax ju bari néewal nelaw yu bari wa xaflatun an zikri rabbina salaam bari looy tudd yàlla baña fàtte tudd yàlla benn jamono yàlla mi nga xam ne ci moom rekk nga mun a amee jàmm fanzur xool ko pour la ma waxoon ne mooy yoonu gaay mu ne la loolu yëpp nag mu ne fanzur fi jawahiril maani li cheykhina al muazzami tijaani mu ne nag wax jooju xool ko ca jawahirul maani bu sang ba sëriñ sëriñ bu mag ba ahmada tijaani wax jooju xaadimu rasulillahi moo koy wax pour nga xam ne nitu yàlla yépp benn lañ zurriyatun baaduha min baad pour nga xam ne leer yépp benn la nuurun ala nuur noonu la ko jëlee pour wax la naka lañuy dindee dindee këchful xijaab tabam la ko waxee mu ne la loola ngir nga wër lu ci demal ci jawaahirul maani bu sayidina ahmada tijaani kon yooyu yépp pour taxawal la ne la tariqatu almuridiya bi nga xam ne moom la xaadimu rasulillahi ahmadu bamba taxawal tariqatul qawmi la yoonu gaaya la turuq yooyu yépp itam turuq muaddiyatun ila alxaq turuq la yoo xam ne itam yoon la ay yoon la la yu yóbbu ca yàlla ca dëgg ga yoon la yoo xam ne itam waasil moo ko yëkkati ku yegg moo ñëw di jël koo xam ne jógagul pour awale ko ci yoon waasil moo ko jël di ca yóbbu di ca ànd ak saalik pour yóbbu ko yoon la yoo xam ne itam kon ni ma ko waxee nanguwul jaxase waaye nanguwul itam diingat kenn ci ñoom ngay daldi jàpp nag ni ne awliyaullah yépp benn lañ da jàpp ne ñoom ñépp boroom yi ngëneel lañ nga nangul leen seen ak ngëneel ngay ñaa jàpp ak mbaax lañ nga nangu leen seen ak baax da ngay jéem a dégg seen wax loo ca déggul nga jàpp ne yow yaa yeggul ci mun a dégg waaye ñoom lañuy wax lu leer la moo tax kenn ci ñoom daan wax ne kalaamu lawliyaa yi lastu afhamu li anna ni ana ana wahum humu waxu wàll yi de tënama ma dégg ko ndax man man laata ñoom ñoom lañu kon danañ lay wax wax joo xam ne soo ko tekkee tekki bu gaawtu danga daldi juum ndax ñoom dañoo am li ñu wax ay jargon baat bu ñu wax dafa am lu muy tekki loolu itam wax naa la ko ca ba ñuy waxtaan ci minanul baaqil qadim fi siirati cheikhil qadim bu sang ba sëriñ Bachiru Mbàkke ci mabxas ba mu tuddee mabxasun fi fanni tasawuf gisoon nañu ne imaamul junaydi moo njëkk a dajale mufradaat yooya baat yooya ba suñu waxee al axyaar nga xam ne lu dul yàlla rekk mooy axyaar waaw suñu yegsee ci yàlla nga gis nañ ko tuddee ci ay melokaan naka lañu jëlee yoon wa tuddee ko suluk ak wusuul naka lañ ci wax waasil lan mooy cheikhul murabbi kan mooy sëriñ bu mat sëriñ yan melokaan lañ ko jox nu muy mel ya muy indi baat ya muy wax ca loo xam ne léeg-léeg doo ko mën a dégg ndax yow baat ya la la koy déggeek la muy firi ci yow daf lay niru ne lii bokkaale la te fekk loolu mooy jëmm tawxiid léeg-léeg ñu ñëw ne la gise naa ak bi xam nga wax nañ ko léegi ne nañ la sëriñ bi mu saafahat na wax naa ak bi mu wax ko muy dégg yonent bi di ko wax mu dégg mu ne ko yaral sa ñoñ yaral sa ñoñ ci himma te nga bàyyi leen a jaarale ci jàngale kon daf lay daldi di yéem nga ne waaw diggante yonent bi ba mu fi jógee léegi junney at ak topp nu mu ko waxee muy dégg ñu ne la gis na yonent bi sallallahu alayhi ci jëmmam ci daarul quddus ci bis bi di fukki fan ak juróom ñett ci safar ba mu ko gisee mu nangul ko sant ko liggéey bi nga ne nu mu koy gisee yooyu yépp daf lay daldi jaaxal waaye boroom xam-xam yi tontu nañ ci démb teg ko nag ci sunna ak siira ak alxuraan ju wér ñoom ñëpp boroom xam-xam yi yëpp nangu nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa rañaane nañ ko jëlee ko Màkka yóbbu ko Beytul Maqdis bañ ko yóbboo ñoom ñëpp nangu nañ ne tase na faak yonent yi yëpp ci seen jëmm mu wax ak ñoom jiite leen ci seen jëmm te yonent yi fekk na ñu jógee fi bu yàgg nangu nañu xissa yooyu yépp na mu demee ba mu demee ca asamaani juróom benneel ba tase fa ak Muusa mu wax ak moom su demee jëli julli bu ñëwee mu wax ko ne ko dellul ñu wàññil la ko te ca jëmm ja lañu wax ne moom la taseel ba ni mu ñëwee ci benn xaaju guddi mu dox ca loo xam ne ëppoon na doxab weer te loolu yépp ñi nangu diine nanguwaale nañ ko ña ko weddi weddi nañ diine te loola nañ ko defale woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy nekk di mucjisa noonu lañ koy defalee awliyaullahi mu nekk di karaama loolu itam xam-xamu karaama ak ne yàlla lam daan def di ijaaz ne ab yonent def na ko danaa ci lottaloo keneen ku bugg defal ni moom noonu la ko maye ay wàll yu te leen ñoom ñu lottuloo ci kenn ne def leen kum neex mu gëm kum neex mu weddi ku gëm moo yokk boppam moo ko defaral ku weddi moo lor boppam boppam rekk lay lor kon gis yooyu nga xam ne dañ ci gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko bokkale boo ca demee ci imaamu sayuti ñu xamoon ko ci xam-xamu xadis wax na lim bu takku bu mu gis yonent bi sallallahu alayhi boo demee ci almursi abul abbas nee na bu ma tàggoon ak moom benn diir rekk ma jàpp sax ne bokkatuma ci jullit yi boo demee ci alimaamu suuri wax na ko lim bam ko gis ña ko wax nag bëri nañ bëri boo xam ne gëm nañ ragal nañ yàlla ragal goo xam ne am nañu xam-xam am xam-xam boo xam ne yaatu nañu màndu nañ màndu goo xam ne lañu boole yépp weddi ko dafa amatul yoon moo tax ci boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañoo tënkoon ñu koy weddi ci benn baat ku mel ni Cheikh Ibrahim Niass dafa daan wax ne ñi koy weddi dañ cee bokkul moo tax ñu koy weddi dañ cee bokkul baat bu ëmb xam-xam la ñu koy weddi dañ cee bokkul mooy dañ ko réere te ki réer réere dara jarlu nga ko koy wax ndax boo ko ko waxee du ko xam ka dëkk ci àll ba mës sa gis njëndi nga ne tey nga wax ko gratte-ciel da ngay sonn rek ay tabax nu ñuy tegaloo la lay wax te daan ndax xamu ko ki xamul dara ki amul caf ko ci gémmiñam nga wax ko li suukar di saf dangay sonn rekk kon ki réere moom di ko wax lim réere jaru ko ki xam suy weddi xam lu ëpp ña xam lañu xam moo ko war a tax a weddi waaye warta weddi weddib loolu munta nekk te ñooñu ko wax yegg nañ ci dayoob xam-xam teg ko ca kon yooyu yëpp dama doon ñëw rekk ci ne nitu yàlla yi benn yoon wi lañu aw xéewalu yàlla yi nag moo baaw naan bëri bëri mu tasaare ko fu ci nekk nag ñu ko fay ut lawoo tudd min xay bil difaati li xayri wa min nii lawoo abdul alaya damiru